alaykum téléspectateurs ici suivre Mbour Tefesse TV ñong leen di bége di leen di ziar di leen di jaajëfal bu baaxa baax di leen balu ak ci wéru koor bi aussi tay ñu indi leen information bi nga xamante jot na tuuru le 6 avril 2023 ca Fatik, muy renouvellement bureau bu bes CRG bu Fatik, comité régional bu fatik kiko taxawal muy gouverneur pour un mandat d'arrêt d'un an bu ñëwee ci membre bureau exécutif bi nga xamante taxawal nañ ko qui l'a actuel président Don monsieur Mamadou Sarr ki nga aussi moo ancien premier vice président de la commission BOUFIMLA, Don aussi ancien trésorier bu CRG bu Nous buñ fa aussi le premier vice président monsieur Abdoulaye qui ki nga maintenu M. de chargé des partenariats et des mobilisation des ressources deuxième vice président aussi dinañ am. Benoît Benoît Thion Faye Qui nga aussi aussi moo chargé ci formation et des innovations troisième vice-président aussi dinañ am Mansour Dianka Qui nga aussi moo chargé ci walu des affaires sociales buñ fa jógee aussi dinañ dem ci secrétaire général Pape Matinjay, Ndiaye adjoint Pape Fall trésorier général Amadou Niane adjoint Badara Diouf ñu dem aussi ci wàllu ñi nga xamante ne aussi ñu feete ñoo feete ci wàllu conseil dinañ am suñu père Ambroise Sarr ki nga xamante ne aussi moo nekkoon entraîneur équipe nationale bu Sénégal ñu ngi koy félicité aussi ki nga xamante ne keroog la mujjee démissionné ñu ngi koy ñaanal aussi di koy jaajëfal bu baax a baax ndaxte def na lu ne indi na façon miss bu ne indi na façon trouver ay médailles yu ne kon ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di koy jaajëfal bu baax suñu père ambulance dinañ am aussi Amady Senghor ki nga xam ne moo nekk actuel président bu commission bu Fimela dinañ am aussi Ajuma John am Massène Diouf am Cheikh Silla am aussi Ngor Sarr am Maymuna Boop am aussi Mamadou Diatara Ndiaye am aussi Aline Badara Diouf ñoñu ñoo yor walu conseil buñ fa aussi dinañ dem ci troisième point bi nga aussi am commission d'organisation ñu am Aline Faye buñ fa aussi président commission technique ci commission technique aussi point il y ñetti point yooyu aussi premier point dinañ am directeur technique régional Mamadou Mendy y am aussi entraîneur Bafa Gueye Bafa Gueye moom la ñu am comme entraîneur buñ aussi dinañ am entraîneur adjoint chargé de la Ligue olympique Daudandou. Ndour Daouda nekk aussi président la commission CRG bu Palmarin bu ñu ñëwee ci commission communication dinañ am foofu Lamine dong kooku mooy Lamine TV dinañ am commission aussi médicale Jogoy John dinañ am aussi commission régionale des arbitres Sambou Diaye am commission juridique Cheikh Sidat Ndour commission règlement et discipline dinañ am foofu monsieur Assane Thiam bu Diofior lii mooy programme bi nga xamante ne nii lañ ko ñoo ngi leen di ñaan ngeen di déglu kàddu amateurs yi di déglu kàddu mbër yi di déglu aussi kàddu les acteurs de la lutte di jël en compte lépp lu ñuy wax aussi xan à part loolu aussi ñoo ngi leen di ñaanal yéen bi nga xamante ne aussi yéenu ngeen ko yàlla mu oyof ci seen bopp yi en tout daal ñoo ngi leen di ñaanal lépp daal